géjoon na ma way gaa yi dee fàtte naa te du ma fët man rakki fàlloo Cheikhouna kon maa ngi jubluwaat ci ñoom Ahmadou loo ak booy Xalil Lo ñoo waral ñëpp yu xuloo yéen juddu ngeen fekk ci réew mi lislaam ak magi lislaam lu ne ngeen ni daa xaram mag ñi fi woon daanañu leen najaka tëj di dóor di rey te mosuñoo am ku ko faj am na ci ñooñ dañ leen a jàpp nii jaam exilé leen ñu dëkk tiis ngir lislaam am na ci ñooñ lislaam a tax ñu bàyyi kër dëkkee xare mosuñ di noppalu ci ker ñoo daa fi mokkal alxuraan di ko nafar di bind kaamil ya di tëj ngir bañ mu far fu ne ñoo daa fa jëli téere indi ko tas ko fi ngir ku nekk mën caa gindikoo sun maam yakat yii coono mbaa sax yu ko raw daj nañ ko fii ci ngir diina taxaw sun bàyyi sargal leen di roy ci seen mbir topp ci seen tànk ba xëy di ay mbër yéen ngeen juddoo ci réew mi seen bàyyi indi leen ci daara yii ngeen jànge fi naasi balaan ahmadu loo mii ak xalil loo mbokkam mën naa ni Touba lañ xamee tey li ñu xam seen baaya baam baa leen defar ba sampu leen ñuy nit diine réew mi ñëpp ràññi leen Ahmadu Lo sabaay liggéeyal Bamba la daa ndamoo ba mus ca baatinam ba yow na nga dem ca naar ya ñëw xëy soppi ko lu luñ wax nga ni bi la diina soppi ko bind sa téere di sosal waa tasawuf di yàq rek suñ nooni naa la jërëjëf mag muñ na woon ci réew mi tudd nga turam wax ca lu ñaaw ngir bëgg a yàq ab deram noonu sëriñ si maa si def la seen njiit nga leen di xeexal gisatoo ku naa la déet doo julli fee ca suñ jumaa ja doo ziyaar ki fii xalifa bamba fu mu aw doo fa jaar doo jàng ay xasida doo waxtaane baaxu sëriñ bamba gi ngir seytaane saa yi ñu gàmmoo ngeen gàmmu daa xaraam buñ màggalee ngeen warul ci lislaam yii rek a tax jàmbaar di doomi jàmbaar xëy dal ci seen kaw yoonu maam jalay aar kookaari siñ xam moom siñ abdulaat buñ ko royoon kon sunu yoon wi gën a naat xam na ni ay mbaam ngeen te mbaam aw yet wu rëy mbaakuur gu rëy nga koy tegal muy dóor a wëy wëy ngeen ba dem grand théâtre di sosal yoonu murit lu nekk ngeen ñu koy taqal ahmadu loo lim wax ci bàmba ak baayam xaaj bi du dëgg laa leen ay bokkam tuubaa dëkkub diine la diine moo waral ñu sanc ko kenn du fa ñëw bañ lay xatal yéen yéen a fekk mag mu sanc dëkkam ba fak njabootam ak i taalibeem yu gëm ngeen nekk fa te lu ñu wax ngeen ne xaraam kontul sëriñ bi duñu leen gis ci daraam jàngi ca naar ya del si xeeb seen bopp di yoggi yoggi mel ni xaruñ tàpp yéen soli koppateeg ci kël ngeen def aar bàyyi fi seen aada di roy aaday naar te tàmm ngeen di dem ca naar ya yelwaan ju leen di jox ngeen koy dugal ci caaxaan guddi gi ngeen fanaane xool ayda dadaa ak tuus tasar xëy lu ñu wax ngeen biddaa naar naar lu gi ngeen nekke àdduna du dox ba ngeen di naar seen bopp rek yéen ngeen di nax dee ngeen bokk ngeen ci ahlu sunna ya te booba yéen a nga ci ahlu sonn ya ngir sonn weesuwul nga ne ci am réew te lépp soof la wóor di sos rek a kameew léeg Omar Sall ni day waaraate te waa réewul xamu lu dul naxaate nee na ci ay reen ak ci lay liggéey xamu ci tus maa leen ko wax na ngeen ci teey ngir moom gëmul ni benn jaam mën naa jariñ moroomu jaamam li tax gëmul sëriñ te gëm na ni ay reen ak yu xobi garab mën naa jëriñ nit góor si daal mooy dof bu nëpp ahmadu loo yow ak sa doom xalil loo tee ngeen a dal moytu ñu leen di wax loo fii nga fi tudd bàmba rek ñu am naqar jàppee la noonu fu na ñu fa yàq sa der day wane rek ni bàmba lañ bañ diine yitteelu leen ñoom yàq mooy seen yéene sun mag ñi liggéey bii ñu liggéey ba ko fi dëgg ko samp wax du tax ba mu jóge fi ahmadu loo xam nan ko xam xalil loo topp nu leen nun bàmba rek lan doyloo Cheikh Bamba gindi nanu nun dootuñu réer doy na nu sëkk faalewun kuy sànni xeer tiijaani it alxaaji Malick doy na leen noppalu leen te xam ni faalewunu leen alxaaji Abdoulahi ñas ak Baye Niass liñ jëf ci lislaam doonatul lu nit di tas xaadiri it si Abdou Xaadir jiili gindi na leen lijjantiwul seen cooli noppalu leen noppal nu nit ñi sonn nañ yéen fàtte ngeen lool yéen a raw mettitu bëñ taxaalu naa yal na nu yàlla jàppale musal nu ci wahaabi yi di tappale amina amina bijaahi bamba kéema gi maam Cerno sëriñ Masamba sëriñ Saalihu Géy Badar